ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci mbirum Bati Plus wala sax lu concerné groupe Fares yaakaar naa ni ñu bari ci yéen dégg nañ coow li bari woon nañu bindoon ñu ci sujet boobu noonu mais puisque dafa di dossier bu compliqué lool. am yu bari ci laqku dañu ne won nañ ci tay ba am d'abord ay document ay kayit yo xamanteni dañ ci mëna sukkandiku ngir prouver li waral coow manam transfert de fonds yi nga xamanteni ni wax lewal xaalis go xamni anam giñ ko jaarale du yoon ñu xam aussi doomi aadama yi ñu tudd ci mbir mi ku ci nek lan mo ci sa responsabilité manam lan moo liyek liyeeg problème bi dog nak ñew ci yeen ne len fe yaagi ni mbiri ni la démé duñ ci tiré tiireegum conclusion parce que jamono gi ñu wax ak yeen ni enquête bi mi ngi woy dossier bi mi ngi ci loxo yoon lundi bi rek 15 juin deglu nañ way juru ak fiancé ndaw si nga xamanteni mo doon gérer coffre fort Body Plus di wuyu ci turu Rachel bi directeur général bu Body Plus moom itam di Christian Chabel Samra placé nañ ko moom itam sous contrôle judiciaire guñ ko teguñ ko loxo mais yoon nañ koy top ba légui dossier bi aussi ñu ci tuddu wa FBI lan moo duggal sen tur ci mbir mi loolu itam daan ci ñew indi ci leral leerale itam groupe djihadiste bi nga xam ni mooy Hezbollah yan relation la ñu am ak dossier bi wala groupe Fares parce que ñoom itam ñu ngi leen di tudd ci mbir mi. en tout cas vidéo bi tey restitution des faits lay doon maanaam fi mbir yi tàmbalee lan moo ko sabab ak naka lañu ñu yegsee ci bile situation. comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp dossier bi mi ci concerné groupe Fares di ay sénégalais d'origine libanaise ñu ràññee ci Mohamed Fares ñu gën ko xam ci turu Momo Fares mom ak ay frère yu ci melni Assane Fares ak din Fares ñom nak ñoo mom société bi nga xam moy Batimat ak filialam bi di Bati Plus ay société yo xamanteni ni dañuy yëngu ci lepp lu jëm ci matériaux de construction mo xam fer à béton produit électrique garo équipement plomberie ñaari entreprise yooyu ci lolu lañuy yëngu groupe Fares aussi ñoo détenir manam ñoo mom entreprise bi nga xam moy mooy ñu bolé ci di defar itam yeneen produits sénégalais xam yu ci melni précia di collaborer également avec Orange ci service Kirène avec Orange Momitam, Kanya Granley. donc Ben empire bu le la bo xamanteni dañuy représenter lu am solo ci économie sénégalaise sen chiffre d'affaires ñu à ko ay centaines de milliards légui nak gannaaw bañu ñu leen présenter société bi limu et doon ak ay activités am dañuy ñëw fi problème bi tambalé nous moy la véritable question mi ngi tàmbalee ci seen société bi nga xam ni mooy Plus filiale bi nga xam ni ñoom waa Fares ñi ko teg ci loxoy benn bu ñu Christian Chabel Samra nekk directeur général Body Plus. léegi ndaw si nga xamante ni ñu ngi koy tudd ci mbir mi muy Rachel moom itam di sénégalaise d'origine libanaise am 24 ans gannaaw ba mu jàngi jee France am fay lijaasam en gestion woy jurum bu góor boole ko ak directeur général Body Plus ngir mu liggéeyee fa. Nous avons signé le contrat en tant que gérant principal du coffre-fort Nous avons 22 ans nous avons le dugg ci xaalis ak a coffre fort entreprise Plus mom ndaw si gérer. d'ailleurs nous avons posé une question xale 22 ans pare formation amul expérience ñu dénk ko poste stratégique bu mel ak alal ji nga motivé choix Christian Chabel Samra l'olitam, question mais nañu des ba qui ci fee légui ci wéru mars 2020 bi wessu société bi nga xamné moy Bati Plus gannaaw ba ñu defee benn audit maanaam ceytu seeni kees xool koppar gi ñu sétlu ni amna écart bu ci 126 millions de francs CFA koppar goo xamante ni ñoom xamuñu fan la ci noné le directeur général Bati Plus di Christian Chabel Samra porté plainte ki nga xamné moy Rachel bi nga xamné moy gérer entreprise ci noné la yon tégué loxo Rachel le 25 mars 2020 topé ko association de malfaiteurs faux et usage de faux en écriture de commerce avec abus de confiance. léegi nak mom Rachel gannaaw bañ ko tégué loxo téye ko ci la japp ni gaay yi ko bëgg sacrifier ngir neub yenn mbir yi ci la porté plainte mom Rachel ki nga xamni moy Christian Chabel Samra pour lan extorsion de signature extorsion de signature boo ko moy ci walum yoon ko xamni soit dañ la menacer wala exercer benn violence wala pression ci yow pour diital la ngir nga signer benn bir Rachel ci walu bopam ne lolu lañ ko def mais yemu ci ndaw si dafa xamal section de recherche kani depuis ba mu nekkee bir Bati Plus di fa liggéey en tant que gérante coffre-fort bi patron bi nga xamni moy Christian Chabel Samra da doon yoni ci mom benn courtier bu wuyoo ci turu Moussa Fall ngir lan mu koy jox xaliss liquide mu yóbbu. moom Rachel ne xamul nag fan la Moussa Fall boobu noonu doon yóbbu xaalis bi mu ko doon jox te bu ñu xaymaa xaalis boobu noonu tollu na ci deux milliards huit cent millions de francs CFA. léegi nag gannaaw ba Rachel xamalee loolu noonu waa section de recherche porte plainte ki nga xam ne mooy Christian Chabel Samra pour extorsion de signature ci la gendarmerie yi commencé mener seen enquête parce que bu fekkee ne am na mën nañ ko jàppee blanchiment de capitaux maanaam lewal xaalis ci lu jaarul yoon. alal joo xamante nii amaana bu jaaroon fi mu war a jaar mënoon jariñ Sénégal ci wàllum fisc ci noonu la section de recherche dégluwee Christian Chabel Samra pour mu leeral 2 milliards 800 yi fan la dugg début enquête bi nag Christian Chabel Samra daf ko weddi woon dafa ne amul mais ndekete Rachel ci boppam garde woon na ay décharge pour ëllëg bu njombe amee maanaam lépp luy prouvé que ni Christian Chabel Samra doon na yónni Moussa Fall mu koy jox xaalis muy yóbbu mooy document yi ngeen gis nii ay décharge la yoo xamante nii moom Rachel dencoon na ko au cas bu ñu demee ba problème am wala yoon am ci loxo lii yëpp ngeen di seen ay document la doon na ko jox ay montant wu jàpp cinquante millions saa yu ñëwee ba ci somme yu toll ci soixante millions jàpp quatre-vingt-dix te lépp liquide lay nekk du nekk ay chèque xaalis cash la ko doon jox Moussa Fall di jël di yóbbu. ci seen enquête nag section de recherche. compté nañ lu toll ci 65 reçus maanaam juróom benn fukki reçus ak juróom yoo xam ne buñ ko xaymaa ci xaalis toll na ci 2 milliards 800 millions yu échappé suñu corps de contrôle yi léegi nag question bi mooy xaalis boobu noonu fan la doon jëm loolu mooy la véritable question léegi nag enquête bi yematul rek ci Rachel mais yoon day topp aussi Christian Chabel Samra mi directeur général plus.

mais ba tey ci enquête section de recherche pour xam xaalis bi Christian Chabel Samra don yoni Moussa Fall fan la doon jëm gendarmerie def seni investigation ba trouvé que ni ci ñaari commerçant libanais dañ ko doon déposé kenn ki di wuyoo ci turu Hassan Hassim kenen ki di wuyoo ci turu Aydar Soufane bi gendarmerie defé descente ci ñom manam ñaari commerçant libanais yoyu nonu Hassan Hashim fekk nañ ci mom 525 millions 497 mille francs CFA liquide kii di ay Aïdara Soufane moom fekk nañ ci moom 48 millions 483 mille francs CFA ba tey xaalisu liquide lépp ay dollars la ak ay euro te loolu xaalis bi Moussa Fall mujjee déposé la ci ñoom boolewuñ ci yeneen dépôt yi nga xamante ni defoon na ko parce que Moussa Fall ci fàttali courtier Batiplus la depuis ay at donc imagine leen ñaata milliards moo échappé suñu corps de contrôle yi maintenant xam nañ fan la musaa faal doon yóbbu xaalis bi mais lan moo taxoon ñu ko doon jox commerçant yooyu noonu di Hassan Hachim ak Aydar Soufane loolu mooy beneen question bu mag bi bi section de recherche laajee Christian Chabel Samra lu tax ñuy rawale xaalis bu tool noonu ci ay magasin nee na dañ ko doon jaarale foofu pour après yóbbu ko banque biñ ko njëkkee déglu loolu la wax léegi nag comme que banque moom boo fa déposé xaalis dinañ la jox reçu ne la déposé nga sàngam ci bës sàngam ak heure bii gendarme yi laaj Christian Samra ak Moussa Fall xaalis bañ daan déposé ci magasin wu naaru libanais yooyu noonu ngir mu jóge fa dem banque lañ fa jotoon déposé ci lu weesu ana reçu bi wane ni xaalis boobu ci banque lañ ko déposé woon kenn ci ñoom ñaar génnewul reçu buy wane ni xaalis mës naa jaar foofu noonu dem banque kon la fa Moussa Fall jotoon déposé lu bokkut ak li gendarme yi gis ba tey kenn xamul fu mu dugg loolu nag moo tax ñenn ñi doon njortu ne xaalis boobu noonu la ko taxoon jóg mooy financé waa Hezbollah esbola comme ni ngeen ko xamee benn groupe islamiste la bu basé wu Liban réew yi ci mel ni États-Unis Canada Australie wala Hollande ñoom dañoo boole groupe boobu noonu muy waa Hezbollah ci seeni i liste organisation terroriste yi réew mu ci mel ni États-Unis ñoom bañ na ko ba ñuy rëbb waa Hezbollah moo xam fépp fu ñu mënti nekk dañu leen di wër parce que dañ leen jàppee danger. léegi nag lan moo indi waxi waa esbola ak groupe Fares lan moo tax ñu bari ne xaalis ba ñu doon coow ci ñoom la jëm ba tax ñu ne FBI dugal na ci loxoom. loolu lañ fas yéene leeral. entreprise bi nga xam ne mooy bati mat te juru filiale bi nga xam ni mooy Batiplus te famille faraise moom ko seen benn jarbaat bu ñuy woowee Abbas Fawaz mooy directeur général bi moo ko jiite. mais moom Abbas Fawaz en 2013 FBI daf ko boole woon ci liste agent wu Hezbollah yi nga xamante ni ñi ngi opérer ci Afrique soo jant maanaam ñun Sénégal suñu réew yi. Si démé ci département du trésor américain dinañ ko fa fekk mom touram nañu traduire d'abord page bi pour mo accessible liste ba nek ni. def nañ lien bi ci description vidéo bi pour qu'après ngeen puissiez vérifier mënuñu lire le mais ci teunk américain yi dañu Abbas Fawaz kenn la ci responsable département des relations étrangères bu Hezbollah d'ailleurs ñoom américain yi Abbas Fawaz moy chefu Hezbollah Sénégal nekk di fi joué itam rôle bu am solo ndax daf leen fi recruter ay membres. ñu rax ci dolli ne gannaaw bi conflit Israël Hezbollah bi amee en 2006 moom Abbas Fawaz dafa créé benn groupe bu ndaw yi Hezbollah ngir lan promouvoir organisation bi waaye itam di leen wutal koppar goo xamante ni dina leen permettre ñu mën a xeex. États-Unis ñooy wax ba tey ñu ne ci seen site bi Abbas Fawaz utiliser na ay marché yi mu am biir Dakar Sénégal. pour collecter ay fons maanaam alal ju baree bari ngir dooleel waa esbola waa itam di yaatal limu seeni ndaw. donc bu fekkee ni moom Abbas Fawaz tey muy directeur général Batimat bu groupe Fares te américains yi ciblé ko maanaam boole ko ci seen liste boo xamante nii dañ koy rëbb di ko wër. waa FBI bu ñu déggee ni ay milliards ne transfert de fonds yoo xamante nii kenn xamul fa la naroon jëm forcément mbir mi day intéressé waa États-Unis ndax dañuy jàpp ni fii ci Sénégal la seen noon yi di defaroo donc ñun gëm nañ ni américain yu dossier bii ñor na leen trop intéressé na leen te duñ ko bàyyee noonu loolu mooy situation bi tey. léegi nag ñun Sénégal lan mooy nekk suñu taxawaay ci mbir mi ñoo ngi déglu di xaar fu wànnent di mu jégi bëtam mais gis nañ ni du n'importe qui la suñu way takk yi jàmmaar lool seetlu ngeen ni ba moment bi ñuy def vidéo bi nii Rachel kese la ñu teg loxo. mais Christian Chabel Samra bi nga xam ne moo doon yónni Moussa Fall ngir mu doon jëri xaalis di yóbbu ba léegi mi ngi doxi soxlaam seulement dañ ko placé sous contrôle judiciaire mais kenn teewu ko beneen question bi mooy ñoom Mohamed Fares yi nga xam ne ñoo moom société bi luy seen responsabilité ci mbir mi loolu aussi laaj la boo xamante nii ba tey ama amaguñ ci tontu mais comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeenu vidéo bi rek dossier la boo xamante nii ba tey mi ngi ci loxo yoon mënaguñ ci tirer conclusion mais li wér te mooy du yomb ci ñi nga xam ne ñooy def enquête bi du yomb ci juge yi nga xam ne ñoo war a àtte après du yomb ci ñi nga xam ni itam impliqué wu nañ directement ci affaire bi te ba léegi kenn xamagu leen parce que mbirum ponkal la ñoo xam ni bariwul ci réew mi ñu amul fu ñu jaar ak yow ba ci ay média am na média yoo xamante ni tey ñemewuñu laal sujet bi nii parce que ay intérêt yu rëy ñoo làkku ci ginnaaw parce que benn ay entreprise lañ yor yoo xam ni dañuy dugal koppar ci média yi pour ay publicité ay partenariat donc lépp lu laal ak loo xam ni du seen intérêt mun nañ casser contrat bi te bu boobaa média bi mooy perte am na aussi ñeneen ñoo xamante ni mës nañ jaaru ñoom feneen te du ñu laal sujet bii nii ñun nag libre nañ mën nañ traité lépp lu laal ak njëriñu Sénégal teg ko ci gëstu teg ko ci ay preuve yoo xamante ni da nga koy làmb daj amaana daañ si dellu si waat ak yeneen leeral bu bi avancé ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf